di lancer waat aussi un message à mon ami et frère le maire Bara Gaye di ko wax ne c'est le premier magistrat de la ville ñun ñëpp tey moo ñu boole njaboote période yu toll ni bu amee ñun ñëpp dañuy daw làqatu ci ginnaawam mais moom mu ñu tiital mooy lu na attaqué état di wax état def fi dara état deful ni état dama koy wax ne moom lan la def ci commune bi te ñu ngi koy xaar ndimbalam parce que ñun nga xamante ne ay dañuy éliruñu mais fii lañ dëkk ñu ngi door indi si suñu ndimbal cay indi ko ci commune bi te du tey commencé nañ ko bu yàgg moom nag fu ñu ko doon xaaree mooy état indi na fukk moom bu indi juróom parce que mairie am na budget mairie am na recette municipale te tamit ay commerçant yi ñu doon fay juuti ci nekk ci marché yi tey ñooñu ñu ngi seen kër liggéeyatuñu tey kër yi fi nekkoon ku ci nekk boo soxla dara këyit bi da ngay mairie bi da ngay dem fay tey ñooñu ñëpp liggéeyuñu daf leen war a jàppale mais du xaar du ne rek état deful état deful état parce que gis nañ tey Sénégal am na 554 communes commune boo gis ba ci Oore Fondé mairie yaa ngi yëkkati di dimbali askanam moom nag ñu ngi koy xaar ci wax na bàyyi takk rajo yi ñu ngi koy xaar mu ñëw ci koñi dimbali nag. te tamit loolu am na fii ci aussi au niveau de population Afia moo tax ñun kii comme fii la ñu dëkkee fii la ñu commencé pour dimbali nit ñi donc ñu ngi koy rappelé waat moom ñoo utiliser moyen mairie yi. bañ ko xeex ak xam ne état ñëw na pour dimbali sénégalais moom mu jël dimbali parce que instant bi nekkatuñ ci parti politique nekkatuñ ci politique politicien ñu ngi ci lan Sénégal moo soxla ku ci nekk ñi da war a fàtte sa bopp te ñu ngi nekkat aussi ci weeru koor weer gu am solo ñi nekk a jullit te nit ñi soxla nañ dimbal bi dañ fiy ñëwaat encore une fois encore wax nit ñi ne président de la république mu ngi seen ginnaaw mu ngi leen taxaw mais ñun en tant que doomu gox bi lu ñu am yëmbal moo ñu ko gënal lu ñu am banlieue moo ñu ko gënal moo tax na nit ñi bu ñu soxlaa dañuy fàtte suñu bopp ñëw dimbal nit ñi parce que bu solidarité amee ku nekk ku mun dimbal sa morom ndóol gi dina dina dina mën a waxuma mu jeex parce que yàlla suñu boppam dajul mais bu bu ñëpp defee comme keneen ak keneen def je pense que tey tey dina tane mais moo gën moo gën xasante bi gàjjante bi parce que nit ñi taluñu ko